إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom jëlla waala ngalla way yow jaam xamal ni foo mën a tol ak loo mën a nekke boole ko ak sant sa boroom borom boobu nga xam ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom moom mi nga xam ne moo yónni woon ci ñun jaamam boobee di yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jàngal ñu naka la yàlla gërëmee ñu jaamoo ko ko ñu ngi ñaan yàlla julli ci moom ak jabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit mi ngi nii day tiim ñu benn xéewal goo xam ne ci xéewal yi gën a màgg la benn weer woo xam ne mooy sangu weer yi di loo xam ne nii suñu boroom subhanahu wa taala dogaloon na yonent bi ba mu ko daan fekkee ki saxaabaam da leen ci daan bégal ne ay waay xam leen ni mi ngi leen di dikkal weer wu barkeel yàlla farataal nañu woor ko yàlla dana ci ubbi bunt aljanna yi lay tax a dugg àjjana yomb lool yàlla tëj ci buntu sawara yi lay tax a dugg sawara jafe lool seytaane yi nga xam ne ñooy yàq doomu aadama yi suñu borom yàlla dana leen ci tënk yàlla may na leen ci guddi goo xam ne moo gën junni ay weer ay lu ëpp juróom ñetti fukki at yu nit ki di jaamu yàlla guddi googee moo ko gën a màgg ci yàlla loolu moo tax ba da ca daan békk ay saxaabaam daan ca békk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam noonu mu ñu daan bégalee ngalawaay loolu it mooy nekk suñu jubluwaay xutba tey jullit ñi xam ana yéen xéewal moo nekk ci ramadan loolee dana tax ba leen ni sunu mbokk caameen yi nga xam ne bu ñu nee ramadan rek seen xol di tiit contraire ba moo war a am ramadan dañ koo war a teeru comme ni ngay teeroo gan goo xam ni su ñëwee mboole mi xéewal yalay jëriñ dana lu ko indaaleel mi ngi noonu noonu la ñu war a teeroo ramadan rasul sallallahu alayhi wa sallam ne ay waay xam leen aji woor ji day dana am ñaari mbikk heure buy dog kooram dana békk na am mbokk julit boo koy dog ci bés bu nekk sa borom yàlla subhanahu wa taala dana la may ñaan goo xam ne du la ko delloo ba ba weeru koor bi yépp di jeex waaye itamit bis bu ngeen wooree ba koor ga jeex ba ngeen di bég daje ca julleekaay ba suñu borom yàlla dana seddaloo malaaka yi la nga xamee ni nii mooy ay diplôme yu leen di goreel ci sawara di leen tabbal aljanna ay yéen mbokk julit xam leen ne koor googu it heure boo dajeeg sa boroom rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na fariha bi sawmi da nga kontaan ci koor gi nga doon woor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom yàlla day jëmmal weeru koor yowmal qiyaama jëmmal alquran yowmal qiyaama heure bu la sa borom yàlla di àtte boo gëstoo gisoo ndey gisoo baay gisoo sëriñ gisoo xarit ñoom ñooy ñëw taxaw koor gi ne ay yàlla jéggal ko yërëm ko man day maa ko xañoon la nga xam ne mooy lekkam ak naanam ca bëccëg ak bànnee xam ya bu ko defee alxuraan ne ay suñu borom jéggal ko yërëm ko man day maa ko xañoon noppalu yam waroon a nekk di ko noppalu ci guddi loolee suñu borom yàlla jéggal la loolu tax heure boo dajeeg sa borom da ngay kontaan ca koor googee nga xam ne nii moom nga fekke suñuy yonente alayhi salaatu wasalaam béggeem ña ci ñetti mbég mbég bu njëkk ba nee na ku wóor weeru koor fekk na yaa ngi xam ne lii yàlla ko farataal nga sàkku ca pay ci yàlla yàlla baal la mboolemi bàkkaar yi nga jiitaloon mu ne ku taxaw guddi weeru koor yàlla baal ko mboolemi bàkkaar yi mu jiitaloon bal benn guddi di laylatul qadr ku taxaw laylatul qadr yàlla baal ko mboolemi bàkkaar yi mu jiitaloon mbokk julit doomu aadama yi xamuñu lan mooy importance bàkkaar waaye xamal ni li gën a rëy lu yàlla defal ab jaamam mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu koy wax baal naa la loo jiitaloon ak loo nar a def ci bàkkaar yëpp loolee mbokk nekk xéewal gu rëy goo xam ne day tax ba jullit day weeru koor bu heure bu ko séenéew muy ñëw day kontaan am shawxa lool ngir mën a fekki weer woowe mbokk weeru koor suñu borom yàlla ci mbaaxam day ful la nga xamee ni nii mooy jaamu yàlla yi la ca gën a néew da koy ful ful gu tar weeru koor mooy weeru suñu borom ubbi buntu njéggalam yi suñu borom yàlla ubbi la nga xamee ni nii moom mooy ay xéewalam ca it lépp loo xam ne defal nga ko ko yàlla jalla wa ala na mu sell yàlla dana ko fule noonu la gën a néew li yàlla fay ab jaamam mooy fukki yoon léeg-léeg mu yóbbu ko ba juróom ñaari téeméeri yoon bal suñu borom mu ne wallahu yudaa'ifu liman yasha léeg-léeg mu ful ko ful goo xamee ne nii doomu aadama yi seen xel yeggu ca waaye nag rawatina koor ga nga xam ne danga ko cay def loolee nga xam ne mooy jëf yi malaaka yi ñoo koy fay ci ndigalu seen borom amma koor moom suñu borom dina malaaka yi bàyyi leen may fayal sama bopp te moom kenn du ko wutal ab lim naan pourcentage temps temps la suñu borom moo koy fayal boppam ngiree bëgg gëm ko bëggoon bu ko defee mu ne malaaka yi jaam bi bàyyi leen ko ak man maa koy fay ndax moo bàyyi woon lekkam ak naanam ak bànnee xam ngir am la nga xamee ni ni mooy sama ngërëm lii mbokk jullit moom mooy mbir boo xamee ni nii ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel weeru koor ñëwul ngir xiifal ñu maral ñu déedéet mbokk jullit loolu mooy la gën a néew la nga la jullit di war a yëg ci weeru koor waaye weeru koor dafa war a nekk loo xam ne jullit dafa yëg ne occasion la ngiree ma gën a jege sama borom jalla waala looloo tax borom bi bi muy indi aaya weeru koor da caa dugal ni wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu dawata daai ida daan falyastajibu li wal yuminu bi laallahum yarshudun heure boo xamee ñi nii samay jaam ñi ngi ma leen laaj ne leen man ku leen jege laa danaa nangu siini ñaan ay waay nañ ma wuy si ca gëm ma ngir ñu doon ñu jub kon mbokk weeru koor mooy weeru suñu xol yépp suñu yéene yépp daa di nekk gën a jege suñu borom jalla wa ala boobu nga xam ne ku jege ay jaamam la waaye it doon occasion ngir dogu ci ni mboolem sàggante yi ma amoon ci jaamu yàlla yi wala ci bakkaar yi weeru koor gi moom danaa fexe ba suñu borom yàlla teqali ma ak loolu loolu moo tax ba suñu borom ne ngiree ñu doon ñoo xam ne ni ñuy jub moo tax it ba mbokk ab julit day xamee ni buñ ko laajoon lan mooy jubluwaay bi gën a rëy ci weeru koor la muy wax mooy la yàlla wax suñu borom dane ya ayuha allazina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun ay yéen julit ñi farataal naa ci yéen koor farataal ko ci mboolem xeet yi leen fi jiitu woon ngiree ngeen am ragal yàlla lan mooy ragal yàlla mooy jéem a jàng ba xam ay ndigalam taxaw ci sa kéemtalaal kattan jéem a jàng ba xam ay tereem moytu ko sa kemtaleel kattan looloo tax ba li gën a màgg ci weeru koor mooy sol saw dang sol sol sol saw dal nafari diine borom bi jàll waala mu ndax kenn ci yéen réere na ni bu weeru koor ma saan jot suñu borom day wàcc jibril alayhi salaatu wassalaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy nafar ak moom alquran di ko jàngal njàngin ba di ko jàngal tafsir ba di ko jàngal ahkaam yi nga xam ne moo nekk ci biir téere bu màgg boobee looloo tax ba jullit ñi ci kaw suuf na am duñu teqi du ko mukk ak téere bu yàlla bi waaye bu wéeru koor jotee dañ koy jagleel lépp loolu moo tax ba comme ni ngeen ko miine ci jàkka ji ak yeneen i jàkka bëccëgu wéeru koor bu jotee bés bu nekk daan daje lum néew néew benn waxtu ubbi téere borom bi fàttaliku waat ay ndigalam ak la nga xam ne ay tereem gannaaw ba dogu ñaan yàlla ngiree mu jàppale ñu ci loolu mbokk mooy jubluwaay bi gën a rëy boo xam ne chehru ramadan dana ñëw di ñu ko jàngal ngiree julit bi heure bu amee ragal yàlla su fa jógee fu mu mën a nekk ci kaw suuf day bàyyi xel jaamu bi yàlla la na doon ca marché ba la ca kër ga la ca usine ba la service ba la fu mu mën a nekk te mooy la yonent bi alayhi salaam doon wax ittaqillaha haysuma kunt foo mën a nekk nang fa nekkee ak la nga xamee ne nii moom mooy ragal yàlla goo xam ne nii moo lay may génn waa ci say xat-xat mooy tax nga texe àdduna mooy tax nga texe àllaaxira waaye mbokk julit gannaaw loolu it bokk ne xéewal gu rëy gu ñu weeru koor di fàttali mooy ay yéen ñi nga xam ne yàlla wërsëgal na leen xamu leen xiif bés bu ne ngeen añ bés bu ne ngeen reer def réserve yoo xam ne xamu leen sax des fois naka ngeen koy def suñu borom yàlla di xamal jaam ñi ne tëralewul noonu àdduna am na jaam yoo xam ne bis bu ñu xëyee seen problème mooy fu ñuy jële añ suñu añee fu ñuy jële reer loolu itamit weeru koor nekk benn occasion boo xam ne dana fàttaliwaat jaam yi lan mooy xiif lan mooy mar su ko defee nga xam ne kat man nekkati di ma xiifee tey jii am na ay jaam yoo xamee ne nii man sama ndog ñu ngi may xaar mais am na ñu xiif comme ni ma xiifee te ñoom amuñu lu ñu ndogoo mi ngi noonu te man amuñu lu ma lu ñu ndogoo mi ngi may fàttali kenn ci imaamu alxaramayni benn waay di ko téléphoné ci Cambodge ne waaw ndax jullit bu wóoree ba ngoon ci amul lum ndogoo ndax kooram baaxul imaam ba jooy fa jooy yu métti na am mbokk jullit am na suñu mbokk jullit yu wóor ba ngoon amuñu lu ñu ndogoo noonu ma ko waxee foofu noonu la amee suñu réew mi looloo tax weeru koor mbokk jullit rasul sallallahu alayhi wa sallam daan ñu ñaax ci jullit ñi bàyyente xel jàppalente mu wax wax joo xamee ne nii ku ne war na caa bàyyi xel xoolal coono bi nga am ci weeru ko ci ci bëccëgu weeru koor rasul sallallahu alayhi wa sallam ne su dee am na julit bu wóor nga jox ko lu mu ndogoo mboolem tuyaaba ji mu am ci kooram yàlla dala koy bindal loolee mbokk tuyaaba la joo xam ne góor ak jigéen ku ne war naa góor góorlu ana nan la koy faggoo tey jii bu ñu xoolee fa lillahi alhamd suñu mbokk arab yi ñoom day yëg-yëg boobu ñoo ko jëkk a yëg ci ñun ay at yoo xamee ni nii ñoom ñoo daan jël seeni ndogu yu baree bari di ko yónnee ci réew yi jullit ñi ñoo xam ne xamuñu sax fu ñu féete ngiree sàkku tuyaaba joojee loolee ñu dem di ca organiser ay ndogu waaye bañ demee ba jëmmi jamono ca it la ko waa réew mi yëg comme nañ ko yëge loolu tax fa lillahi alhamd ba jàkka yu bari ñu fa doon organiser ay ndogu ngir ndogal nit ñi ca koor ga ñu woor bokkoon na ci suñu jàkka ji ba ba suñu borom yàlla di ñuy indil benn nattu muy corona ñun nit ñi mënatuñoo daje loolee la nga xam ne dañu ko daan jël di ko togg ay ndogu di ko indi ci jumaa yi suñu borom yàlla xelal ni moo ne day am na loo xam ne moo ko gën ca mooy créer li ñuy tudde des paniers ramadan pañe ramadan yoo xam ni ab borom kër nga woo ko jox ko saakoob ceeb jox ko la nga xam ne mooy dëwlin ak sukkar bu ca soblaaj leneen amee nga boole ko ca moom njabootam ñu dem dund ci ay fan loolu moo gënal nga woo ko ci jàkka ji mën nam du ñëw wala bu ñëwee it yor loxoom dem yoonam looloo tax ba mbokk jullit fa lillahi alhamdu ci jamonoy corona ndimbal yi ñu daan jot ci jàkk jëpp noonu lañ ko doon defee mais bi corona passé dañu gis na loolu moo gën loolu moo tax ba ñu ngi ñaax mbokk jullit ñi képp koo xamee ne nii am nga loo xam ne mën nga koo jàppale say mbokk jullit day am na ñoo xamee ne nii ci jàkka ji ñi ngi wër jàkka ji ñu bari ñoo xam ne fii la ñu nekkoon xam ne jàkka ji jàkka juy joxe ndimbal lañu fu ñu mën a nekk ci kaw suuf da ngay gis ne dañuy fàttali seen bopp loolu it lu ci waay mën a am ba joxe ko insha allah dana dem ci ña nga xamee ni nii daan ci doge seen koor ca nga fexe woon ba lu mat téeméeri nit nga may leen ñu wóor te may fami fukki nit rek boo leen joxoon lu ñu wóor lu ñu lu ñu doge ci koor gi rek daanaka da ngay gis mu ñetti téeméeri nit loolu lépp yàlla bindal la ko kenn xamul tuyaaba boobu nu mu toll kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax bàyyi xel ci génne sarax nu ñu ko mën a génne loolu mooy beneen jubluwaay bi gën a rëy gannaaw bi nga jógee jokk sa boroom laabal sa xol jëm ci moom la nga xam ne mooy sa jëmm ak sa alal nga jëme ko ci jaami yàlla yi loolee da ngay gis ne amul lenn lu gën a màgg xéewal boobu waaye ñetteelu mbir bi doomu aadama xamal ne war ngaa góorgóorlu ci weeru koor la nga xamee ne nii mooy changement di am ci yow ki nga xam ne nii dafa changé wul ci weeru koor mu mbokk jullit kañ lay changé yow jullit bi yàlla nattoo nga sàggane say julli ak bari suñu ndaw ñi sàggane say julli weeru koor mooy war a nekk occasion nga ne ba baa may dajeeg sama borom day dootuma manqué ti julli yow mi sàggane woon jàkk yeeru koor mooy war a nekk sa occasion dootuma manqué ci jàkk baa may dajeeg sama borom te xam ne boo ci changé wul doo changé ba abadan ay yéen mbokk jullit koor googee dama jëllale la nga xam ne moo ca nekk ci wàllu wér gi yaram nga xamee ne nii médecin yëpp dëppoo nañ ci ne li doomu aadama bi di am bis yu muy woor mboolem lu nekk ci yaramam ci ay organe na doon ca foie ba pancréas ba na doon ca rein ya la lépp loo xam ne nii équilibre bu muy war a def ci wàllu ay sukkaram mooy diabétique ya cholestérol ba yépp koor googee da koy régulariser ba nga xamee ne nii biir yaram bi dafay set wecc ba looloo tax mu ñëw ci ay xadis yonent bi alayhi salaam naan wóor leen su ngeen wóoree day da ngeen doon ñoo xam ne nii ñu wér lañu loolu moo tax ba mbokk julit dañuy war a delluwaat ci suñu boroom xoolaat am yéene boo xam ne bu màgg la bu dogu la ci ne suñu boroom yàlla day lépp lu mu dogal ci ay jaamam yërmaane rek moo tax mu def ko suñu yonent bi mu yónni wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yërmaande rek moo tax mu def ko kon lépp loo xam ne sant nañ ko ci jaamu yàlla rek la nga xam ne moo cee nekk ci sagesse mooy la nga xam ne nii moom mooy yërmaande su ko defee yërmaande googee la ci gën a màgg mooy nga sant sa borom jàlla waala ay yéen ba ko julit xam leen ne tey jii day bu ñuy xool adduna bi am na ñoo xam ne nii fanaanuñu seen kër bomb yaa ngay dal seen kaw am na famille yoo xam ne teqalikoo nañu dama jëlale li ngeen di dund tey ci Ukraine waaye suñu mbokk ya nekk Irak ya nekk Syrie ya nekk Afghanistan ya nekk Palestine ya nekk feneen ak feneen ñu ngi dund ay guerre yu metti tasaaroo ci àll bi waaye ay yow mbokk jullit mi yàlla subhanahu wa taala may aafiya bàyyil xel ba tey ndax fàttali ko heure bii daaw ak ren ana ñaata lañu ne fi tàgge ci ay doomu aadama kenn xamul lu ñu toll yow sa borom yàlla wërsëgal la ngay dund nga la waaye na nga góor góorlu ñaan yàlla ba weeru koor bii ñëw ba nga dolli ko ci ay tuyaaba ndax dala dul wóor ndax yow weeru koor bi dala nekk sa dernier mujj weeru koor bal dala dul wóor ndax danga ko fekkee am déet waaye wallahi su dee ne sa yéene moom dafa sell lool ci sa kanamu boroom lépp loo yéene woon ne bu ñëwee danaa ko tey def ci tuyaaba xamal ne sa boroom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem mi ngi la koy xaare loolee sotti na wala loolee nekkul loo xam ne nii lu sotti moo tax borom bi subhanahu wa taala dañuy wax naan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun julit la koy bégal mooy jaamu yàlla julit la koy bégal mooy la koy jegeel borom bi jàll wa ala loolu nag mbokk julit amu ci lenn loo xam ne gën naa màgg gën naa mat ci lu mel ne li nga xam ne moom mooy shahru ramadan su ko defee bokk na ay tegtal àjjuma ji di ñëw insha allah moom lañ koy séentu doonte ne Sénégal ci seeni takk ñoom samedi lañ koy séentu waaye bis buñ ko mën a séentu yàlla xam yow daal julit xamal ne heure boo xamee ne am nga xabaar yu leer yuy wane ne weer yu feeñ na ngelawaay loo mënoon a jàpp bàyyi ko te daal di tënku ca la suñu borom bi wax man shahida minkumu shahra falyasum képp koo xam ne fekk na weer ba ngelawaay na ko woor ñun ñëpp ñu bokk ñaan yàlla subhanahu wa taala mën na am lu ci bari nañ cay dugge wuute donte ne yàlla bi ñu doomu aadama ci wuute waaye nag ñu fexe ba wuute guñ cay wuute it mu bañ a yegg suñuy xol lépp lu ca waay di def na ko def ci yàlla tax ca muñul moroomam ma nga xam ne daal ju yoog moom lii de buñ ñun ñëpp buñ ci dëppoo suñu borom yàlla ñaar rekk a mën a am ñee féeteeg dëgg dana leen jox ñaari fay ña nga xam ne dañoo juum yàlla dana leen jox benn fay ñoom ñëpp yàlla boole leen ak njéggalam ak yërmandeem yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ko defal yàlla nañu yàlla indil weeru koor ci jàmm yàlla nañ koy indil ci xol yu booloo yàlla nañ koy indil ci njéggal ak yërmande yàlla na yàlla teggee ci suñu mbooli mi tiis yàlla na ci yàlla saafara suñu mbooli mi feebar yàlla na ci yàlla faje suñu mbooli mi aajo yàlla na ci yàlla yëkkatee suñuy daraja yé jéggal ñu ca ca yërëm ñu ca mbokk allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin